li nga xamante ni euh, moom ministre bi wax na ko tey lan mooy proposition bu Cusems authentique waaw jërëjëf ñun Cusems authentique boobaa leen ñu ciy waxtaan ginnaaw bi ñu jëlee proposition ministre de l'éducation nationale bi tege ko ne jàpp ne comme ni ko waxee ay caaxaan ñoo ko lal te mënu la nekk din defee loolu ba pare nag tooguñu di seetaan danoo toog xalaat xalaat li nga xam ne ñun jàpp nañ ni moom mooy saafara yi mën a andi ci jafe-jafe yi nga xam ne moom la feebar bii Covid 19 andi ci suñu réew kon nag ñun saafara yi nga xam ni président Macky Sall dane na ko xa élèves yi def ba ñeenti fan ca weeru mai wala ñu jëm ñun jàpp que teguwul ci lenn duñ jël décision boo kon nag ñun nañ ni temps boobu ñu koy perte lu mat a presque ñetti semaine ñun loolu jàpp nañ ne ñun li jàpp mooy na ko wàññi. ñu ñëw ci ñaar fukki fan ak benn ci bii mu ne donc fii ak semaine rek mën na noo delluwaat ci daara yi ñu daal delluwaat ci liggéey bi mais nag day am nu mu fay demee ak mu koy waajale ni mu fay demee mooy danoo jàpp ni bu ñu xoolee ne classe yi nga xam ne ñoo fa nekk bari nañ mais am na ci ñuy def examen ak ñoo xam defagul examen ñu nga xam ne ñi nga xam ñoom la ñu war ñu war a def examen ñooñu la ñuy wax ñu dellu ci daara yi lalu yi moom ñoom lañ tuddee cm ci daara yu dugg doomu yi ñoom lañ tuddee troisième ci daara yu kawe yi ñoom lañ tuddee euh, terminal waaw ñoom ñett ñooñu ñoo fi ne ñoom ñetti classe yooyu la wax ne nañ dellu ku ci ne ca école ba nga doon jànge bu ñu demee yeneen classe yi ñeen ñu amul examen doon jànge ñu tas ba ku nekk maître ba fa ne ñu ci lim boo xam ne boo yeggee yow da nga leen mën a encadré léegi nag contrôler par maître ba leen yoroon ñoom avant ñuy def nga xam ne mooy wax fu mu yemoon ñu toog réunion ca seen biir ñuy waxtaan ci cours bi nu muy demee ku ci nekk jël lan ci wala ca war a jàngale nga yóbbu ko ca sa dalas jàngale ko bu ko defee bu demee ba nga xam ni war nañoo am waxtu noppalu tuuti ñu leen ku ci nekk na nga toog sa classe bu génn surveillant yi toog surveiller leen bu waree wàcc tamit ñu ànd surveiller leen génn tasaaroo ko sa ñun lii lan jàpp ne bu ko defee dana gën a gaawal mbir ndaxte groupe bu ndaw boobu ñuy jox jàngalekat day tax jàngale ba gën a gaaw ñuy jàngalekat te xam ne lépp xam nañ li may wax bu lu groupe bi di gën a ndaw ni ngay avancé di gën a gaaw rattrapage yi am si mooy yàq tey amoon nañ war a dab dabaatal tamit di gën a yomb kon nag bu boobaa danañu mën a permettre ñooñu bu école tëjee ñu def seen examen te benn problème buñ paree ci ñooñu ñu def noonu tamit pour élèves troisième yi ci collège yi. ñoom it kat ya dajaloo tas ko ci classe yi fekk yeneen classe yi ñu ñëw ñu ñëw toog seen kër bu ko defee dañuy mën am ay classe yu ndaw mën a am kat yi doy ku ci nekk classe bu nga daan yor ngay ñu def noonu tamit ci terminal bi bu ko defee foofa élève secondaire ak première ya toog xaar terminal yi kese dem jàng ñu tas leen ci groupe yu ndaw kat yëpp ku ci nekk ñu yor groupe bu ndaw ñu encadré xale yi respecter distance benn mètre boobu xam ne moom la waa santé wax ci diggante nit ñi bu ko defee ñoom daañ mën na jàng ba noppi di raxasu di jël loolu ñuy tuddee mesure barrière yi ak yépp def ñu tegaleen ko ci buntu classe yi ku ci nekk def li nga war a def surveillant yi ñu takk seen i masque ñoom ñëpp élèves yi loolu lépp mën naa nekk incha allah mooy li muy tuddee mesure barrière yépp yi nga moom la waa santé wax ne baax na ñu génn xaalis ci xam ne moom lañ am ci fond bi nga xam ne pour xeex loolu la daal distribuer masques yi correctement élèves yëpp am ko ak jàngalekat yi ñëpp am ko bu ko defee ñuy raxasu bala ñoo dugg ci classe buñ génnee tamit classe ñu yi a jël a a daañu ko ndaw ci salle bu mag pour nga tas sa ñaar fukki élèves bu dara donc ñun lii lañ jàpp ne buñ ko defee daañ mën a def examen yi ci dal léegi ñeneen ne toogoon nag seen nga xam ne ñoom ñooy classe yi amul examen buñ demee ba nga xam ne léegi euh, feebar bi jóge na fi bu dee ñaari weer wala bu dee weer lu mën a doon tànk école tëjagul bu feebar bi bu ñu demee ba man feebar bi ñun Sénégal rek daan lañ mën a delloo si waat ci biir jàng bu ko defee moom it bu ñu ñëwee rek ñu daal di tëriwaat lépp ku ci nekk dellu ca classe bi nga mënoon a nekk parce que feebar bi jóge na ci biir bu dee loolu nag amul ba nga xam ni école la ñu waaj a ubbi ñun jàpp nañ ni ñoom ñoo ñu desoon ñoom la ñuy andiwaat nag ci école bi bu ñu leen andee ci école bi nag ñu daal di leen di organiser pendant mois de septembre bi nga xam ne daan toog di ko bér ñoom jàngalekat yi ñëwaat jàngale si bu ko defee ñu jàngale weeru septembre jàngale weeru octobre ba dugg novembre bu ñu duggee novembre man fekk rattrapé nañ bu baax lañ nekkoon ñu doog a organiser nag ñoom seen i composition deuxième semestre bu ko defee nag ñu daal di daal di firndeel ni ñoom xale yi la ñu nekkoon dab dabaatal nañ ko kon seen année ngi doog a mag léegi nag bu ko defee bu ñu paree rek ñu may leen benn semaine ñu nopp rek ñu commencé waat nag ku ci ne ca classe ba nga war a nga dem dugg fa nag commencé waat jàng buñ ca tegee ab diir rek fekk nooy leen dina ñëw daa nopp kon nag ñu lii leen jàpp nag proposition yi nga xam buñ ko defee daa mën a année bi ci loo xam ne parce que man ay ci may xel sénégalais yi koy nañ bu ko nga xam ne ñoom ñooy dakkal seen i vacances pour ñëw jàngale ci mois de septembre bi am na ñu naan ma taw yi day am taw yooyu waxuma ko ci français mais ñun proposé nañ ni na pro kilifa yi nekk ci région yi gouverneurs yi préfet yi sous-préfet yi euh, ñu maire yi ñoom ñu nga ñoo leen ne kilifa nguur gi ñu nekk ca gox goxaan yi ñooy xool classe yooyu nga xam ne nekk nañ ci ay abri provisoire nga xam ne bu dee taw mënu ñoo jàng ñoom ñooy wuti ay classe ba jëlee luwe ñu luwe bu dee àbb du àbb parce que diir bu yàgg gàtt lay doon benn weer rong lay doon wax dañ koy àbb pour que nit ñi faa jàngale la tànk taw bi arrêté kon loolu jàpp naa ni loolu mun ne parce que am réew yoo xam day taw ña foofu fukki weer ak ñaar te xale yaa ngi jàngi mën naa cee joxe Angleterre c'est vrai que réew mu am doole la mais fii Sénégal mën nañu jox suñuy matuwaay lu taw bi metti metti ñu jël suñuy matuwaay ba organiser ko ba nga xam ne élèves yi daan jàngi parce que Sénégal taw taw bi dana dana dana door bu boobaa mais Sénégal nekkul réew moom bés bu ne day taw nañu waxante dëgg aussi taw yi moom ñëpp d'accord nañ ne wàññeeku na wàññeeku boo xam ne sax da toog des fois lu fukki fan bu taw kon nag jël ay ci bis yi nar a taw kooku man jàpp naa ne nañ koo def bu ko defee muy mesure exceptionnelle état bi tam jël ci xaalis boobu nga xam moom la tuddee Covid 19 nga xam ni euh, mi ngi nekk junniy milliards. yoo xam dañ ko waajal pour mu mën a xeex feebar bi te comme li ci xeex feebar bi la jëm kon bu ko defee jàngalekat bi jox leen ay indemnité yoo xam ne a ñu wàññi seen bu ko defee xaalis boobu moom la ñuy utiliser tamit utiliser ko pour frais yi mu war a def yëpp a pour mën a récupérer année bi parce que daf ñu ko war a jaral lépp lu mu jar pour ñu mën a ñàkk année war nañu koo donc ci loolu laa la la nekk ñu wax gisam authentique loolu la ñu proposé bu ko defee jàmm ne ñooy ñu récupérer suñu tey ñaan feebar bañ fay dikkati kon nag leneen lu fi ñu def Sénégal yi nag ñooy